ma lay wax juróom-ñaari mbaam sëf la ren di jéggi ndax lan alali àdduna dëgg la groupe la woon da doon agressé di sàcc di fàqat di def lu nekk di fóonante rek la yem amul leneen mais fóonante dafa garaaw bu garaawee nag gém ña ngi miñ dong la bëgg siiw du dem bàmmeel ku may digal lu baax ma def la sama noon weddi li ma doon fa ma jóge woon gas def ci kàmb la ma bàyyi be léegi maa ngi nii xaw ma fu ma nekk nii dama reer xaw ñëw ci li nga xam ne rek moom moo di émission bu mag bi lee nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan seen télévision mag bi lee mu di Walfadjri leeru jamono la voix des sans voix ci studio El Hadji Sidy Lamine Niass Niass Koumba Abdallah ci ci studio solution tv ñu leen di sargal di leen ñaanal jàmm di ñaanal ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi ñuy bàyyi xel ñu daal di soobu ci li nga xam ne rek daal di ci liggéey bi daal di ànd ak ki nga xam ne rek moo di sama rakk madame Dieng Sall ki nga xam ne rek moom moo di maa jigéen Diop bu fas yéene fegoo ki nga xam ne rek moom moo di Oustaz Souleymane jaw ci masala bu ñu fa jógee daal di ànd ak ki nga xam ne rek moom moo di Mame Bambi Kébé Kébé Ndiouga ak Ali Ndiakhate ak Sang Bay ci li nga xam ne rek moom moo di kujje gi su baaxee ñu dem. Euh, nuyu naa la Mame Bambi. maa ngi lay fay madame Kébé Ndiouga ak Ali Ndiakhate ak Sang nuy naa la maa ngi lay fay Mbaye di la wax la la naa la sa jon baax na. di nuyu oustaz mu ma fekkoon sama ndeyjoor. saa ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax di la nuyu di nuyu soxna yi rawatina sama xarit. Euh, Saay Njoogu maa ngi lay nuyu méng ak mboor ah macha allah maa ngi sama rakk xol bi. Mhm. tubaarkàlla sa giri tamit euh, bàyyi woo ñu benn yoon xaw ma sëmoo la def nii noonu tubaarkàlla. donc di nuyu ñuy seetaan ñëpp amaan mbégte bu rëy rëy ci émission bu mag bi lee di jommet di dugg Fatick ndànk di nuyu sama yaay booy di dox ba jaan sàkkoro wéral dundal yàgg fi lool ñaani yegg si na sa dund gi am na njëriñ ci ñun itam waaye sañu ma nuyoo itam te du ma nuyu maa anta baax yaay coiffure sama sponsor bu mag bi nga xamante ne ba jomme dooree ba léegi tubaar kàlla maak moom ci maquillage bu belli bi ma jongo ma neex a xool fari may jaar ci tubaar kàlla madame Dieng Dieng Sala coro ma jigéen di la nuyu bu baax a baax di la ñaanal yàlla wéral seen loxo yi mm-hmm. lafa leen cet ñu yàgg ci liggéey bi ak ànd bi waaye sañu maa yooyu itam te dul ma nuyu maman Senghor ca Touba sama magu bopp ji di nuyu Cheikh Ahmadou Mbacke ah euh, baaxkat boobu nga xam ne di sëriñ Seydina gën ci ñun recevoir ñu ñaanal ñu Mbacke la ci kas rajo bi ñu ngi lay ñaanal yàlla nga fi yàgg te wér ak taalibe yëpp ak mboole mu jullit ci barke alxuraanu karim ci kanam tuut ñi daal di ñëwat ci réew ko jógu amati solo hmm? daal di koy saajëra tëmbal réew mi yëngu na dëgg li néew rek am noo ko defatee jaxase ko dañ koy dëbb non réew mi dañ ko war a lay mbaay dañ ko war a lay non réew mi moo waxul dëgg ko war a <laughs> allahu bi ah, donc ma nuyu ko sama rakk ji moom it ah ma dem madame Dieng la ci ma jigéen mbaaxee boo ni nga def yéen lay jàppale. macha allah sama rak di nuyu naa la. <laughs> maa ngi lay fay. Mhm. maa ngi lay fay bu baax su kay di la mhm. ñaanal jàmm. di fay bam bi sengoor si noir bi macha allah. Mhm. tu es toute <laughs> na trop nuyu naa la bu baax a baax ñaanal la jàmm ñaanal ko moom mi nga xamante ne nii fi mu toll nii day jël grand bu buy aj ko ba fii di mel ni grand sëriñ de dakaar te nekkoo ko dëgg yàlla doy na waar moo noonu daal. maa ngi lay nuyu bu baax di la di la ñaanal jàmm di ko ñaanal sa ñaari soxna yi di nuyu alaaji sa njóogu mbeng xarit sëriñ siidi bi mu sëriñ Abdou Lahat Mbàkke ma koy ñaanal mu yàgg fi lool Mbàkke balaay Cheikh yàlla suñu borom yàggal ko fii defal ko jàmm defal ko njabootam bis ko si biir këram te di ko ñaanal mboolem xalif yi ci biir réew mi yëpp yàlla na réew mi yëpp am jàmm sukkaa mbaay du ma nuyoo nag ba tàgg ba delloo la ko te du ma nuyu waa kay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm di nuyu nag képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy teewlu jamono ji ci Walf TV rawatina nag suñu plateforme boobu di solution info info ñu leen fay nuyu bépp internet bi nga xam ne rek yaa ngi bàyyi xel nuyu nañ la eh, si kanam tuuti lay doon incha ci masala yi ah, ko nuyu ko nga xam ne rek eh, moom di bàyyi eh, chéri Aïda di bàyyi Sëriñ Saliou ñu koy nuyu ko nga xam ne rek moom di son bu di fëddal suñu collègue ak moom lu bëree bëri nekk ci ay yitte moo tax euh, ñu ko ñu nuyu ko nag dem ba Cees kaay benn dëkk ñaari ga dugg jàmm ak gën. Uh-huh. nuyu fa Chérif ya waa kër Cheikh na Cheikh Saad boo xayatu Chérif. ah ma nuyu la bu bëree bëri mbaa xeeboon. ni nga def oustaz sa bulle rafet na sa sañ sa rafet na ànd ak li nga xam ne moom moo di euh, li nga xam moo di mbaxana mi ak ni nga ko indee ni agencé ko bi <laughs> rafet na baax xeeboo ko déedéet déedéet déedéet alhamdulilah <laughs> alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa nabiyina wa moolana muhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallama taslima soxna Sukka maa ngi lay fay ñi ngi am mbégte ak contentement comme saa su ne nuñ koy waxee àjjuma ju jot ñu daje ñun ñëpp yàlla na loolu sax amiin na yàgg ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam am mbégte ak contentement ci daje bi mhm. waaye rek eh, di nuyu xalif généraux yi ci réew mi yëpp tabarakallah su ma nuyoo sëñ Babacar Sy Mansour sëñ Mountakha Bassirou Mbacké mm-hmm. ñu yóbbaale mboolem xulafaaw yi ci réew mi rawatina nag suñu waa kër maam limaamul mahdi yu nga xam ni bërki démb rek yàggul def nañu lu rëy ci réew mi mm-hmm. rawatina kii di Seydina Issa discours am bu riche bu rafet boobu nga xam ni def na ko ñu ngi koy nuyu mu doon loo xam ne lu arrangé lu mm-hmm. lu sénégalais yi soxla la kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla aar ko sàmm ko loolu la ñuy demee nag euh, ba Mermoz ziyaara bu baax ki nga xam ne mooy imaam Pape Sakho di mhm. doom ci alaaji Ibu Sakho ñu nuyu ko ziyaar ko su kaa noonu la ñuy jëlaatee avion rek dem ba France seeti suñu jigéen bu baax ku mhm. bëgg jommet mhm. muy soxna Yandé Sankhéré di ko bëgg jommet macha allah di koy suivre jommet Yandé ñu ngi koy ñëw di ko am mbégte ak contentement ci moom ma jigéen nag may tooñ naan ma grand sëriñ de Dakar te doonoo ko ma ni ko léegi man petit sëriñ de Thiès laa waaye lii ma ma jigéen seen soppe seen xarit xaritu saa xarit ñun ñëpp mu El Hadj Kabir seen El Hadj Kabir Sène ah, waa. Oh, daa jékki-jékki rek woo benn tayeeram bu ñuy wax Xaadim Seck. Mhm. mu defar ko ba mu baax mun ma joxal ma ko Oustaz Souleymane. Ah, kon Kabir Sène ñu Kabir Sène. nekkoon fii ci Walfadjri tabaarakallaa moom moo def jëf ci rafet jooju yàlla na ko yàlla fay yow ci barke Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam <coughs> euh, nuyu ñëpp rek <coughs> bawuñu kenn mhm. sa pays xarit yi am na jàmm yi mhm. yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm soxna Ndey si nekk ca France moom tam ñu ñaanal ko jàmm ak salaam mhm. bonheur duñ ko fàtte yàlla na yàlla defal ko jàmm ci barke Yonent bi jërëjëf su kaa kàddu gaa nga euh, waaw rafetati na macha allah euh, donc bu ma dama lay moom it dama koy nuyu rek nga xam ne rek moom moo di oustaz Kabir di feddali suñu ko ndax suñu xarit la lool macha allah ñu ngi koy nuyu lu baree bare euh, dama koy nuyu ko nga xam ne rek moom moo di soppee sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoul Ahad Mbacké mu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul allah di nuyu na la lu baree bare Souga ñu ngi lay fay mm, di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante ci yow eh, di dem ba Touba nuyu xalifa général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tànd ak wér waaye di nuyu di ziyaar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi sëriñ Abdou Lahad Mbacke di koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool tànd ak wér di ko ziyaar bu wér nuyu sëriñ Xaadim ne kër ga di njaboot ga yëpp di leen ñaanal jàmm di nuyu sëñ Abdou Karim Mbàkke borom Makaarimul Axlaaq di nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp mhm. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di nuyu ma jigéen ak euh, bam bi masha allah riitambale na fu ne <laughs> dégg nga nuyoo yi di nga xam ne noonu la riitambalee ma ni loolu kenn mosu koo gis ah, waaw baax na tey dafa am temps moo tax mu riitambale loolu yëpp waaye di nuyu yaa oustaz Talassous macha allah Kabir def na lu rafet. waaw loolu moom vraiment euh, mbégteeg bànneex am nañ ko ci. Mhm. Euh, parce que loolu rek la nit ñi mënalante. vraiment mhm. donc euh, ñi ngi ko ci ñaanal yàlla na man lu ko raw. vraiment mu nekk yeneen ak yeneen yàlla na sunu borom dolli xéewal gi. Mhm. vraiment nekk na loo xam ne am na solo trop loolu lu rafet la. voilà wax dëgg fa yàlla tey bi ma gisee oustaz moom dama ne. Euh, tey moom saas moom ci temps la ko teg waaw euh, ni mu ajee mbagg yi rek wala yow ne la génne kii bi wala yow ne la tey moom oustaz moom euh, da ko teg ci temps daan ko teg ci temps nag waaye tey nag mi ngi waat ci temps waaw temps bi la macha allah waaw di nuyu sukaa di nuyu sénégalais yëpp yi nga xam ne mm. ñu ngi ñuy teewlu mm. tey di ajjuma mm. macha allah ñuy amal li nga xam ne mooy jomet xam naa gars yi tàmm guñu ko waaye incha allah rek léegi rek ñu tàmm ko macha allah ndax heure bu baax bi day daal di ñëw muy 21h nekk ci Walfadjri leeru jamono. Ah. donc dañuy dem régie rek daal di jëli li nga xam ne rek moom moo di sunu euh, sunu kii masala daal di ñëw ànd ak suma rakk ji euh, man jigéen Dieng Sala ak ki nga xam ne moo di Oustaz Souleymane Diaw Talasus. léegi dem naa ba xamatuma man maay kan mënatuma dëpp xaw ma fi ma nekk mooy fan. Euh, jërëjëf Modou jërëjëf. da nga xam ne ah. tey son yu mu nekk fi moo tax ngay. lii tàmbale tey kay moom macha parce que tey jii xam nga ni am nga. temps lii tàmbale ñuy France Italie loolu daanaka ko dundee. loolu dafa lu la <laughs> ko dundee la nuyoo <laughs> <laughs> sama rakk ji. madame Dieng Sall. Ah. tey lan nga nu indil. waaw euh, Souka. Mm-hmm. Euh, jërëjëf euh, Masala comme nuñ ko tàmmee di defee rek euh, à chaque fois waaye nag korom keroog wax naa ko fii nee nañu léegi méthode bi dafa changé képp koo xam ne rek bëgg nga ñu euh, tegal la sa question bi nga xamante ne nii euh, lu la xaw a réer la wala lu la xaw a jaxase si wàllu diine ji oustaz moo ngi fi uniquement pour di ko tontu mm-hmm. ay vidéo nag ngay def soo ko defee ba noppi nga envoyé ko via whatsapp si 77 272 55 59 77 272 55 59 balaa nag ñuy dem tey régie di jëli suñu question ah. yooyu nga xam xamante ne nii eh, ñi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel posé ñu am nañ fi benn question boo xamante ne nii ñu ngi nuyu son bu bàyyi woon na ko fii te aussi ñuy nuyu waale Assane Mesere bu baax a baax mu euh, ñu am benn question boo xam ne daf daf waa ji def ne daf ko jaaxal parce que le fait balaa ñuy dem di jëli question yi tout à l'heure comme ça ñi ñuy bàyyi xel ñu xam ne dinañ ñëw ci seen i seen i question nee Euh, dafa gis ni à chaque fois euh, diine asan waa <laughs> dafa moo ko laaj oustaz yóbbante la te yóbbante àq la voilà mu ne oustaz dafa gis ni léegi dañu diine dafa aaye d'habitude góor ak jigéen di joxante loxo lu dul sa soxna wala ku nga xamante ne ni leer na ne ni yow mënuloo ko takk te mu gis ni accolade nit ñi ñi ngi koy def te ba déggul ba tey ñu wax si dara mu ni woon naa la wax pour nga leeral ko ci loolu ci question boobu. mu laaj macha allah. Euh, waaye nag am na solo de. xaw ma ndax bàyyi ngeen xel li ma jigéen laaj wala déet. Euh, question bu am solo la. ndax ñëpp ànd nañu d'accord ni jox liggéey jox jigéen loxo dafa araam. Hmm. ku dul sa soxna ku dul sa soxna maa sa ko armal. Hmm. Euh, sa yaay mën nga ko jox soxna sa yaay mën nga ko jox soxna. jox loxo. waaw mën nga ko jox sa loxo. sa hmm. yaay. sa rakk. sa rakk boo jigéen boo bokkal ndey ak bàyyi mën nga ko jox soxna. mën nga ko jox sa loxo maanaam képp koo xam ni képp koo xamante ni yow ah. sharia araamal na sa diggante ak moom maanaam yow kii mënoo koo takk sharia may na la kooku nga jox ko loxo hmm. est-ce que yaa ngi dégg saa hmm. waaye képp koo xamante ni mën nga koo takk sharia araamal na ngay gis sa loxo jox ko ko hmm. yaa ngi may dégg waaw man ma jox la sama loxo. yow ma joxanteeg yow loxo. dafa araam de. ma joxanteeg ma jigéen mii loxo dafa araam de. baam bi mii ma jox ko loxo dafa araam de pourtant yaa ngi ci biir néegu sëy de. am nga jëkkër ba pare. waaw mais charia nee bu ma la jox loxo. lu waral loolu. waaw parce que àdduna dafa gudd tàng ñaanu ma ko yàlla. bu demoon ba diggante boobu charia dox fa ba amatul charia nee na naa la takk. ah loolu garaaw na de. est dégg nga wax bi. waaw moom accolade la wax. maa ngi ñëw ci accolade bi. loxo bi la njëkk a wax loxo bi la dafa jara dafa jara lijjanti de. waaw waaw jox jigéen loxo. saa bi gën a garaaw lu tax ñenn ñi xam ko ba. bu ñaa waaw ji ko def. Sénégal moom ma jigéen boo bëggee dégg dëgg. dégg leen neexit niñ ko bëggee lañ koy defee. Mm. koo rob mu jox la loxo. Mm. mais dafa xaraam. dafa koo lomb mu jox la loxo dafa xaraam. mais ñu koy jàngale ba pare di ko def. adduna bay tukki Sénégal seen diine diine diine diine bës la. li nga li nga ma laaj nii. boo xefee bi jigéen boo ma fekkee suñu kër ma def ko. du ma sax rendre compte. boo génnee ci mbedd bi. gis joxante loxo bi. te du charia du diine daganul. jox jigéen jo loxo joo xam ni. mais man dama gis ay ustaas yoo xam ne par exemple mën nañu jàngale lii. mais ba noppi di ko def. mais moom laa moo tax ma ne Sénégal diine yi diine yi ndaanaan daal la fi am boo bëggee dégg dégg. ay waay waaw c'est la vérité. parce que déggu li ma la wax damay joxe man chaque jour dafa joxe exemple sam bopp mu gën a dee. ah ah dégg séeréer. non. mën na ma fekk sama kër <laughs> te te ma wax la leen Assane lan moo ko inspiré. waaw dama de Oustaz dama ko fekk mu taxaw. waaw Oustaz jox ma loxo te tayu ko. waaw moo tax mu ma ñëwee. voilà très ma ko laajal ma ko ni ko waxee. parce que dem nañu ba jàpp ni loolu nekkatul lu garaaw. boo génnee ci mbedd yi kon est kon sa loxo bi nañ ko war a dagg. déedéet egguñ ci cadre dagg. waaw maanaam dagg kañ war nañ que bu fekkente ni boo joxee loxo. waaw ah, ah euh, araam na. waaw kon bu fekkee loxo boobu dafa araam. kon yow nga koy jàngalee nga wax. waaw sëñ eggale eggalewul ak ci ni la. boo joxee nit li ci jigéen benn loxo nga fi mu toll dañuy dagg sa loxo eggul foofu. <laughs> l'essentiel l'essentiel waaw l'essentiel déet man bàyyi xel ni. oustaz donte la ñun faalu. oustaz oustaz oustaz da ngay am bàkkaar ci danema hmm? Assane danema hmm? moom dañ ne ko ku joxe loxo. waaw dañ ko war a dagg. <laughs> kon léegi ban daan moo ci am. daan bi très bien. xam nga yonent bi ali fi doy waar. mooy sunu ministre yeeg sunu député yi. ak sunu président yi ak sunu ustaas yi. ak suñu ustaas yi. ak suñu animateurs yi. ak ñëpp. da ngay dem tukki dem beneen réew. nga gis kuy akolaat jabaru jàmbur. accolade jabaru jàmm. accolade grave. mais tubaab bi loolu moom du dara. non tubaab la parce que moom gëmul diine. da ngaa tënku. léegi yow ko def mi accolade jabaru jàmm kale ko. mais dafa xaraam. mais yow bu sa di la comme am keneen ku koy accolade. loolu moo ko war a xam nga sa jabar am na keneen ku koy accolade. waaw teg gis nga ko quoi. te yow teg nga ci sa bët. waaw moo tax ñun. ñu war a nuyoo di accolade mu accolade sa jabar ñu war a ñu war suñuy soxna. Hmm. ci yu baree baree baree bare gis nga sa soxna bokk na ci yi nga ko war a digal mu dugal nga dugal ci boppam mu xam ni amul droit jox benn loxo góor ko dul ko dul yow mais bu fekkee yow mi koy tere xam loolu eh, eh, eh, yaa ngi dégg yow mi koy tere yow mi koy tere yaa koy def mu koy gis ci teg bëtam moom da koy def da koy def mais li ñu war a comprendre mooy ndax def boobu ku góor ki di ko def ak ku jigéen ki di ko def ndax dagan na li am mooy daganul charia def ko araamal léegi mu a accolade bi ma lay wax ni la yonent bi alayhi salaatu neen nga dem ci mbaam xuux yi mhm. seen place boobu ñu ne mbaam bi nga fekk leen fa ñu tëdd nga summee ko yow ba set ti bi nee na nga jàpp mbaam xuux yi di jonjante ak ñoom di jaxasoo ak mbaam xuux yi di jonjante ak moom moo gën fuuf ngéegin sa loxo jox ko jigéen. ah te ko def ilaaha illallaah <laughs> est-ce que yaa ngi may dégg tàllal la <laughs> bul ma ko bul loolu ma jigéen moo ma jour ma jigéen ma toog ma loxo ma nga toog nga loolu a merci taalal ma loxo waaw mais li am solo yow nga jox ko loxo man seen loxo loxo yii dimbali leen déglu nag moox la <laughs> li tax jàngale bi am solo mooy loolu léegi sax loolu mun mun ngeen ko tuub par exemple ma jël misaal ci yéen yéen ñu joxante loxo tey waaw bari may na leen a tuub kon dañ jàpp ni léegi ñu ñuy seetaat moom waaw mooy nga ni bàkkaar bii ma def dootuma delluwaat ci defaat di joxewaat kii loxo mais bam bi boo ñëwaatee di nga ko nuyuwaat beneen yoon non problème bi newul foofu mm. dañ koo def aada li ma lay wax nii bari na imaamu raatib yoo xam ne ñu ngi nekk ci koñ ñoom imaam. quartier dañuy jox loxo jigéen. waaw comme yow rek ni nga def tout à l'heure comme man ni ma def tout <laughs> suba saa ñëw mën na ko def. Eh, eh. bu ma ko waxaat de. dañuy ah, waxtaan rek yaa ngi may dégg dañuy waxtaan rek xam nga xam nga lu gën a neex ci a neex ci diin. même bu yet bi dalee sa kaw. da ngaa war a accepter. dëgg xam nga lii mënoon nañu ko bañ a indi fii ci taabal ji. dëgg la mais pour jàngale. dëgg la pour wane ni ma fii nii jommet. dañ suñuy biir sax ay actes yi ñuy def dañ koy teg ci table ji. Mm-hmm. pour jàngale la. la jox na ma loxo du inta bi garaaw xam nga mooy lan sax. moo jox wala yaa ko jox. man xaw ma maa ko jox xaw ma ma jox waaw mais kaay ma wax la bu yàq léegi kaay ma wax la bu garaaw yow yow su ko yow su ko ah. léegi jàpp nga ba pare. waaw jàpp nga. ma ñëw nuyu la. jullee goo de. Mm-hmm. nga jékki-jékki nuyu ma. da nga may nuyu. dégg loo ñeenti façon ci am nag saa. Hmm. bi nga ma nuyoo rek yow bàyyi woo ci xel de. nuyu gi ma la nuyu rek man yëg naa ci plaisir. mujj hmm. sama jàpp toj na. Hmm. waaw loolu mën na damay jàppaat boo xamee jig. waaw parce que jubluwoo ko ci. ba def naa plaisir maanaam yëg nga ci bànneex rek. ma nii moom jàpp naa ba pare. waa léegi lu toj jàpp bi foofu. Mm, dégg plaisir bi ma yëg man. Eh. te su quoi yëg eh, ma yëg kon day toj jàpp. dafay toj njàpp. léegi bu dee ndaw si daf laa romb bu dee kiiw la. mais romb na rek am nga ci yëg-yëg. waaw waaye njàpp la toj na. loxo laa lay wax loxo bi laa lay wax. waaw donc c'est dama ne. bu dee yëg-yëg. waaw ci dimension bi mu nekk. dafa nekk ci dimension. waaw yëpp yëpp. waaw xam nga dañuy wax ne jàpp lii moo koy toj ak. waaw ngelaw ak nelaw ma ni la déglu li ma la wax de. waaw ci Abdourahmane jàngale laay wax. waaw Abdourahmane li mu wax. mooy jàpp naa ba pare. ma ñëw jox la loxo Souka Mbaye ñeenti sa xam nga saal tax mu gën a. ñeenti moo ci ne moom laa la bëgg a leeral. Mm-hmm. Souka ni ma saraax ma loxo man. waaw yooyu dina ko mën dem sama yoon su ko yëgul lu xew mais man am naa ci plaisir. man mi jàppoon nekk bu dee jox bu dee bi moo ko toj dafa naan dama jox loxo boo demee yëg yëg sentir lu mu bi laa la yëg yëg. waaw léegi nag déglu ma oustaz. Mhm. mën ngay jekki jekki nga nga jàpp ba pare. way laa sax ngay julli am na nu as ndaw di rombee. ci kanam nga am yëg-yëg. loolu taxul njàpp nga yàq. ah loolu taxul njàpp nga ah, lu tax léegi yëg-yëg bi fii njàpp gi di toj. da koo jox loxo. ba pare am lu mu yëg ci boppam. yaa ngi dégg déggoo wax la danger bi fi mu ne mooy ko jàpp na pare jox ma loxo bàyyiwu ci xel. waaw man am na lu ma yëg. léegi beneen mooy su moom jàpp na ba pare jox ma loxo amu ci woon intention far fi ma joxee loxo rek moom mu am lu mu ci yëg moom foofu tamit sama njàpp toj sa jàpp toj mais Oustaz la da ngay jàppaat wala da ngay yaa ngi dégg da jàpp rek da ngay jàppaat rek Oustaz la moo tax am nga la moo tax charia ne nelaw boo boo jàppee charia mu ne boo jàpp gis nga yëg-yëg bu sew lu sew la bu ñoom dañ ca amee loolu maam Bambi waaw ne boo jàppee nga ngelawal sa jàpp toj na waaw nga nelaw sa njàpp toj na parce que si nelaw gi xamoo ndax ngelawal nga wala ngelawaloo waaw donc kon man mii tey xaw moo ne tamit boo nuyoo nit ci kaw njàpp nga nga am loo yëg loolu tamit day toj njàpp effectivement loolu lu ñu war a xam la. léegi lu tax loolu man boolewul ko ci ponk yi sax jàpp. loolu bokk bokk na ci xëy na yaa ah, bokk da cee bokk waaw da cee bokk léegi oustaz nga jàpp ba pare tamit. sa jëkkër ñëw rek mu ñëw rek nga biis ko. waaw loolu tamit day toj njàpp. Ah, eh, attention sa njàpp bokk sa njàpp toj. loolu lu jëm yow yow bu at moom sax amoo ci jàpp. xam nga. xam nga jàpp sa jàpp yow at moom doo jàppee doo ci jàpp moo tax boo julli toj nañ jàpp kay moom a jaaxal déedéet beneen bi nag mooy saa nga xam ne yéen ñaar ñëpp kenn du ci am kenn ci jàpp waaw bi nga xam ni kii moo xam ni yéen ñaa kenn du jàpp te lool lu gaaw la. mooy jàpp gi am na ma pare maa ngi jàpp yaa ngeen jàpp. nga nuyu ma rek maa yow kenn yëgu ci tuus. boobu tamit da ngay parce que kenn yëgu ko ci. Ah, moo tax man la lii la. jàppante bi ba nga am loo ci yëg rek. su ñu yëgee gi amee rek ñun ñaar ñëpp suñu jàpp yàqu na. yooyu ay sew sew la. yoo xam ni saa question question bi fi samay bu bàyyi woon ban question la. waaw question bi ni xam naa bu sooy bu ñëwoon ci lay gën a leerati waaye li leer ba leer daal ko man nag jàppatuma ko woon mhm. mais li leer ba leer daal mooy mhm. euh, damay bañ a réer est-ce ba waaw mais nañ dina ko dina ko gën a mën a leeral moo Modou Diouf ak Abdou Top ñu tegal ñu question bi njëkk waaw mu mel ni amoon nañ fi ay laaj laaj bi ci njëkk mooy boo fekkee ñuy julli tàkkusaan nga ànd ci julli tàkkusaan gi dem ba julli ñaari raaka fàttaliku ne yow kat jullee goo woon tisbaar dangay dagg julli gi wala dangay ànd ak ñoom ba noppi julli tisbaar doo ko baamtuwaat tàkkusaan ji wala dangay dagg julli gi julli tisbaar doo julli tàkkusaan beneen bi tamit ñuy laaj ulul mi maanaam ñaata lañ ak ñoom nuñ tudd ulul azmi waaw ñooñu moom ñu ngi koy laaj waaw beneen bi ñuy laaj fukk yi nga xam ne si maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daleen a gaaranteeloon àjjana ñuy laaj ndax bim leen koy gaaranteel fekk na ñoom ñi ngi dund wala booba génn nañ àdduna fukk yooyu tamit buñ sañan xam ñooy ñooñu ñan la bi ci des tamit ñuy laaj rafet rafet gaa yu baax yi mooy ñaaw ñaawi ña jege yàlla ñu bëgga cig leeral ndax daf noo xaw a lënt turab waaw rafet rafetu gaa yu baax yi mooy ñaaw ñaawi ña jege yàlla xasanaatul abraaru sayiaatul muxarrabina buñ sañan tamit am ci ak leeral bu buñ ñu ko mënee leeralal ustaas kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di ñaanal ñëpp tawfiq ak taysiir tey kii ko oustaz la baax kii yor xalima kii kii li muy laaj dem xam na ko léegi nag yow lay xool li mu jóge dafa laaj ñetti question waaw mais fi mu toll nag il faut ko doon bi njëkk mooy li mu laaj waaw ñetti question la laaj waaw bi njëkk li mu laaj ma jigéen dafa laaj ni kii doon julli tàkkusaan maanaam dafa ñëw fekk mbooloo waaw ñuy tàkkusaan ñuy julli waaw moom nekk de julliwul tisbaar mm-hmm. bi mu amee ba am bi mu jullee ci tàkkusaan beeg ñoom ba am ñaari ràkka fu sew nag la ñu ne mm. mu julli mm-hmm. dafa sew xóot ba di détail bari problème léegi foofu dafa am ñaari ràkka ak mbooloo mi waaw dañ koo giite moom dafa am ñaari ràkka ak mbooloo mm-hmm. boobaa charia nee na war mm. normal julli gi ànd ak ñoom mm. yaa ngi déggu baax li ma lay wax mm-hmm. day normal julli gi ànd ak ñoom bu sëlmalee nag day julli tisbaar bi daal di julliwaat tàkkusaan bi. Hmm. yaa ngi may dégg bu baax a baax. kon ñaari ràkk la ci am. waaw yëg ni moom julliwul tisbaar. day ànd ak ñoom. wormaal julli gi bu paree fay tisbaar dooru julliwaat tàkkusaan. léegi ma defal ko ci benn buuñaa xam nga mooy lan. buuñaa su fekkente ni dafa julli ba julli gi jeex moom. waaw julli na ba julli gi jeex. waaw julli na ba julli gi jeex. xelam door a dem ci moom julliwul woon tisbaar ci eh. si day julli tisbaar rek pare ci. dootul julliwaat ak dootul julli dootul julliwaat tàkkusaan gi dégg nga wax ji. foofu daal di leer. beneen bi mu laaj al ashru al mubashirina bil janna mooy loolu ngeen doon riim mu muy riim noonu. Mm-hmm. mooy fukk yi nga xamante ni. yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ni. fukki yooyu ñoom aljana la ñu jëm direct bam bi fukk yi ku ci déggul sa tur da ngaa war a jaamu yàlla dëgg la ñoom yonent bi da leen a garanti ne ñoom aljana lañ jëm ci dund gi mhm. ku ci njëkk ubaydatu ibnu jaraax la deuxièmement bi ku ñuy wax talaatu troisièmement bi ku ñuy wax zubayru la quatrièmement bi ku ñuy wax abdurahmaan ibnu awf la cinquièmement bi ku ñu wax saad ibnu abi waqaas la sixièmement bi ku ñuy wax saïd la septièmement bi ku ñuy wax abu bakar la huitième bi ku ñuy wax omar Ousmane Ali muy fukk yi nga xam ni al ashra al mubashirina bil na yonent bi nee na leen yéen ñi moom neex naqari direct ba aljana ngeen jën ñooñu rek la yonent bi koseel jox leen caste ni leen yéen aljana ngeen jëm dul ñooñu ci ñun jaamu yàlla si mbirum julli boobu sax nag laa bëgg nga ñëw parce que dafa am ku ma yóbbante ne ma carrément bëggoon mhm. euh, ñi nga xam ne dañu génn àdduna imaam bi ñëw si si si kii bi barab bi ñu ko war a jullee mhm. nee na muy julli ba si yàgg mu sentir que ni def na erreur juum na mhm. mu ni nee na ndax euh, naka la war a def dafa war a arrêter commencer waat puisque dañuy jullee ab néew bu ñu war a dem denc ji wala euh, nan lay def daal tabaarkalla muy question bu am importance am loolu nit ñi war koo xam parce que euh, jullee néew dañ ko war a bàyyi xel lool moo tax xuloog sa imaam wóorul bambi xuloog sa imaam bi nga dëkkal wóorul parce que li garaaw mooy moom suy jullee du wax ci kaw ndànk lay wax boo nekkoon ci koñ mi nag bañ inaan imaam daan jéppi imaam wala ngay xeex imaam wala ngay wax lu bon imaam mën nañ ñëw ba tiim la ni yàlla kii nii moo gën a bon ci carte bi. mais dama lay wax rek li tax déggoog imaam baax. foofu laa wax. ak di gëstu sa imaam xam sa imaam. chef de parti bi ni nga koy lijjantee. Ah, chef de parti bi ni nga koy lijjantee mën naa ñëw ba yegg si di wax lan. naan ah lu wax de. moo gën a bon ci quartier bi. ah yow xamoo lu imaam di wax. nga nekk ci imaam yor jàpp sa làmmiñ bi. foo toll di xas imaam. di wax imaam lu bon. di yàq deram mm-hmm. te imaam mooy imaam ratib ah, bu imaam doxalut yoon. ah imaam bu doxal loolu yàlla moom xam na. dañ ko merci beaucoup. waaw te ba dañ koy teg ci yoon. waaw léegi loolu tax ñu naan la jubóog si imaam daa baax. yàlla moo ne boo tegee néew bi jaaj boo xamee lu bon denc ko tamit. waaw léegi li am solo mooy xam nga yow oustaz li mu wax nii. mën nañ nga xel ci <coughs> am ñoo xam ne dinañ tegaat seen kii daan ne est-ce que sama diw sàngam bi muy génn àddina est-ce di ko jiite kon waxut li nga ne imaam mën na wax la léegi <coughs> li nga xam ne moom la imaam mën a wax non sa nga yëngaleel oustaz dama la saa waaw jubóog sa imaam mën na wax lan jubóog sa imaam lu am solo la waaw boo nekkee ci koñ bi am ñoo xam ni dañuy toog ak imaam ñoom jànguñu jàngaanuñu xamuñu sax lu jëm ci mbiru jàkka waaw mais foo leen fekk yàq deru imaam mooy seen métier dingat imaam waaw dingat ba xam ne sax day am commission yi lu ne nga wax ko imaam yow imaam moom ñu xëy xëy xëy mu war laa jullee mhm. loo xam lu muy wax mhm. lan nga xam lu muy wax ak yàlla te foofu imaam bu wax du wax ci kaw mhm. ñeenti kàbbar rek la ñuy kàbbar dóor ko sa kaw day miime ñeenti kàbbar tey maam day miime. julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Mhm. lu mu gudd gudd gudd bu gàtte ba gàtt. Mhm. li ñu wax mooy yàlla bu dee góor la nga def nga def salaatu ala nabi allahumma ighfir lahu warhamhu am na ñaan gu gudd gudd nag dafa gudd bu fekkente ni jigéen la allahumma ighfir xam warhamha ginnaaw bi nga defee salaatu ala faati ak salaatu ala nabi ci moom ba pare daal di ñaan ñaan yàlla mu jëggal ko nga yóbbu ko ñu war koo denc ba pare ni ñuy dencee néew. ñu baree bare bari saa war nañ ko xam. Mm. Mm, bari nañu waaw. bu ñuy denc néew. Mm-hmm. njaboot yi nañu góor waaw bopp néew bi. dañ ci jàng yaasin. yaasin tànk ba. Mm-hmm. ñu jàng ci suuratul mulk. Mm-hmm. mooy tabaaraka alladi yi yadil mulk. digg bi na ngeen fexe ba njaboot gi. naam ku mokkali isaa isa waqaati waaqaa mu jàng ko fa. ñu door a def ñaan gi. moom la kii di wax chaque jour nee na SMS nee na ñaan gi day gaaw lool waaye gars yi farax faraxee ñaan gi parce que parce que nii dañ ñaan mooy ayoo fukki bi bisi fukki bis bismillah ak yàlla lax laxlaas mais man balaa ngay matal benn sax gars yi rek pare nañ waaw mais mu ngi ko c'est que tamit ni ñuy taf tafee tamit mbir yi lan moo tax mais loolu est-ce que oustaz yaakaaroo ni foofu tamit ñi nga xamante ne bi ñooy encadrement lu jëm ci wàllu ñaan yeeg yooyu war nañoo gën a ànd ak dal mais dafa mel ni dañuy yàkkamtee génn armée bi saa xam lu ma lay parax parax xam lu ma lay conseillé saa waaw géema la fexe nu ñu jàngee nu ñu sangee néew kan moom saa moom saa <laughs> ah waaw non conseil non dama koy conseil conseil la. lu fort wala saa da ngaa ragal sang néew. non am na ñu ko ñemewul. ah waxal leneen rek. continué day yàgg tëbal débat <laughs> demal ci kii. déedéet waaw ah. Azim boo ko jàngee pour. oustaz lan moo tax nit ñi buñ suulijee ba ñëw ñu ne la waroo gees yëpp ay aada la rek. aada la rek loolu parce que dañ lay woo nee na ki ci suuf xam nga la xam nga moo la ko saa. waaw gën a doy waar xam nga saa bu ñu ci ñaan ga. waaw bu demee ci armée leer na ko ni moom saa. fi gars yi waxee ñeent fukki lixlaas ak benn. xaju fa cinq minutes la. xaju fa xarit ñeent fukki lixlaas ak benn maximum. nga koo jàng ci douze minutes. Oh. bu dee sell. waaw fukki ñeent fukki lixlaas ak benn. waaw bu dee sell na te gars yi dañ koy far bu war nga koo jàng ci douze minutes. waaw maximum quinze minutes. yaa ngi dégg. mais sa néew. yaa ko moomal sa bopp. Ah. sangal ko sa bopp. Hmm. mais ñi nga xam ne sang néew rek mooy seen métier nag. saa da ngaa bëgg a dindi métier moom nga a ah, éliminer. ah non parce que am na ñoo xam ne saa ku ci am sa papa mu génn àdduna. jàngil ni ñu koy sangee nga sangal ko sa bopp. te am na loolu sa yaay. Mm-hmm. seetal bu baax toppal ñu koy sang ni ñu koy sangee. say sœur bu ñu fa nekkee fexeel ba jàngal leen ko ñu ñëw tiim sa yaay defar sa yaay jamono ji moo rëpp te nit ñi ni ñuy sangee baaxul. mais parce ah, que léegi sax attention parce que man sinab yi ñuy sinab ak ay kii yàlla bu mu yegg ci morgue yi. yal nañu ci yàlla mos ah, attention parce que non su fekkee léegi mu ne la ñuy wane nga wax léegi léegi mu ne la ñuy wane ginnaaw ñu ngi dugg ci duus di sinab di dëgg la de ñaa ngi dugg ci duus di sinab léegi di ko wane di wane kii dugg ci duus xam nga di morgue ci def ci kanam tuuti yëpp mais oustaz mais oustaz imaginel tey am na ñoo xam ni li nga wax léegi ni eh, boo ci bu ñu suulee nit. boo kenn ki dafa eh, dafa am koo xam dafa war a nekk ci bopp bi. mu am mu wax fa yaasin. ñëw ci tànk bi am lu moo wax. mais am na ñoo xam ne mënuñu ko. waaw moo tax man njaboot gi. xam nga li gën a doy waar xam nga li gën a doy waar maximum famille bi waaw parce que ñoo lay denc nag de akuñ kaa boo amee say mbokk bañ leen nag faale woo leen respecté woo leen mais tamit du tee nga def li nga war a def na oustaz. waaw waaw ku tee nga yërëm ko def ko ñu yéen ko ñeneen ko ñaanal ko. loo lu bon loo nga bañ koo wax. yonent bi xam nga lu mu wax xam nga lu yonent bi wax. xam nga da ngay gis naan noppi leen di ma ngay ku dee ah. waaw ku génn àdduna woon. soo ñëwee am naa ci kër gi yeneen ci bi nee na uzukur mahasina mawteekum. waaw bam bi nañu jëli question bi après su ñëwee. yu rafet dee leen tudd yu rafet yi ngeen xam ci seen néew yi. uzukuru mahasina mawteekum. dee leen tudd yu rafet yu sell yi ngeen xam ci seen néew yi. ayca ayca ñu demaat régie rek àndaat ak Abdou Top ak Modou Diouf. dafa am benn question bu ma bu ma laaj euh, oustaz. mooy ko xamante ne tey jii nii daa nekkoon jullit far nag tuub doon katolik bu naree ñëwaat encore pour doonaat jullit naka lay def ba xam ndax loolu sax est-ce que yoon may na ko walla ak bu naree doonaat jullit naka lay def. Mm-hmm. <laughs> tub bi tuubaat loolu de la wax. Sénégal nag problème bi mooy atte charia doxu fi. Mm. atte charia doxu fi saa. waaye képp koo xam ni fës na ci yow ni jullit nga. nga xëy suba teel ni bàyyi naa jullit gi léegi yéeféer la charia nee na nañ la may trois jours boo tuubul ci li nga wax nañu la rendi xam nga loolu dafa leer sax waxaatal képp koo xam ni jullit nga ñépp xam na ci jullit nga waaw nga mel ni rek benn Ablaye Ndiaye sama doom di jaay la mu ngi ca Louga mhm. xëy xëy rek daal ni carrément moom nekkatul jullit léegi yéeféer la chari ne nañ ko may trois jours bu dee li muy wax nii kafu ci dëgg la ci moom trois jours yi bu matin dañ ko bu fekkonte ne am na jaasi l'islam malheureusement amul jaasi l'islam waaye suñu borom li mu wax dafa leer hmm. inna alladina kafaru min baadi imanihum suma daadu kufran lam taqbal allahu tawbatan ulaayka humu daaluun yàlla ne na ñi nga xamante ni dañoo gëm ba pare wecci seen ngëm weddi yàlla insiste ci nag ni carrément weddi nañu ëllëg bu ñu tuubee sax yàlla du leen ko nangu nangu yàlla teg ci nag ñooñu nag ñooy woy torox yi mais oustaz kii waxul dafa tuub pour doon yéefar mais dafa tuub dugg ci beneen religion religion tourné waat dellu waat léegi nag foofu hmm. dellu si gi nag laay laay doo li ma déparé nii mooy loolu laa ciy leeral dellu si waat dugg ci diine ba pare génn dem mere gi ko yàllay mere léegi dellu si waat léegi nag dellu si nga waaw ah. suñu borom da lay recevoir hmm. lislaam da recevoir bari naa nag aaya yoo xam ne yàlla wane na meram comme lu mel ni yàlla fi muy waxee allah waliyu ladina amanu yuxrijuhum min azulumati ila nuur waaye nag walladina kafaru awliyaahum taaxut yuxrijunahum min nuuri ila zulumati ulaayka asaabu naar om fiha xaalidoon yàlla nee na ñi nga xamante ni dañoo baax yiw yàlla nee na man de may seen kilifa maa leen yu fekk ci lëndëm lëndëm génne leen fi yóbbu leen ci leer waaye nag yàlla neen ñi nga xam dañoo bon yàlla neen du ñu baax ba yowmal xiyaam dinaa dinaa ki kay seen njiit di seen kilifa di iblis moo leen di fekk ci lu baax ci lumière bi jël leen yóbbu leen ci lëndëm lëndëm ga yàlla nag nee na ñoo ñooy kër waa safara te yàlla nee na bu ñu dee fa la ñuy sax loolu nag li muy tekki mooy def lu baax moo gën ànd ci lu baax euh, ma jigéen moo gën topp yàlla doon jullit yàlla nee na ragal leen ma na ngeen fexe ba bu ngeen di dee na ngeen dee ci imaanu billah wala tamutunna illa wa antum muslimun oustaz kii euh, benn soxna la mm-hmm. mu oo xaritam bu jigéen mm-hmm. bu woo mu oo xaritam bu jigéen mm-hmm. ci biir néegam ne ko damaa war a génn am rendez-vous ak beneen góor ndax sama jëkkër daf ma musa trompe ba bett ko kon man tamit damay fayu ku jigéen ki moo wax loolu moromam moromam it manquant mel ni moom na ko waawoo dóor fayu comme ñun duñ duñ ñu mun a duñ ñu muñal ñun tam bu buñ leen muñal. mu ne ko léegi bu sama jëkkër comme dafay teel a nelaw bu tëddee nelaw rek man dinaa la jox même nuisette bi may am danaa ko sol ba mu gis ko xam ne li laa war a tëddee. Mm. yow nga jël nuisette boobu sol ko tëdd ci mm. ndaw si dégg ndigalu xaritam guddi gi jot ndaw si jabar waa ji sol na nuisette ba pare ba tëdd ba waa ji gis na jabaram mi ngi ni tëdd ci wetam sol na nuisette ba xam ne lim sol. Mm. waa ji nelaw bi waa ji nelawee ndaw si génn na ak beneen oto. ku mu amal rendez-vous dem xarit bi tëdd place su xaritam sol même nuisette bi ba ñu séq ko oh. ba mu ànd xaritu jëkkër ji sëy léegi bi mu àndee xaritu jëkkër ji sëy moom ndaw si tamit ànd naag beneen waaye ci oto ba dem sëy jee kooku mm-hmm. may laajte ndax yar bi dina dal xarit bi nangu loolu rek tamit wala ki sëy def loolu kese la chariatul islamiyya di daan ak waa ji nga xam ne moom aussi yëgul plan bi ko jabaram def ba mu sëy ak xaritu jabaram foofu moom tamit lan la ko ci charia wax ndax da koy bàyyi mu sedd mu continuer sëyam wala dafa am leneen lu nga xamante ne si borom subhanahu wa taala mu nga calculer ci amitié ñetti kii la waa ñetti kii ñetti laaj laaj nga laaj li muy li muy indi tey calculer waale ci ne ne bam bi indi na amitié question bu ni poqet bu lëj la mhm, la poqet bu la xaritoo gi daal bul ko fàtte waaw du ma ko fàtte xarit kenn du ko dagg xaritoo xale bu jigéen bi waaw poqet bu lëj la waaye chariatul islam moom loo danse danse danse boo ñëwee fi nga koy fekk. dëgg la mm. l'islam loo bandi bandi bandi bandilu boo ñëwee fekk lislaam moom toog na yore na jaaseem mm-hmm. jaasi l'islam nag moo dugg ci kër gi nga may nettali tey mm-hmm. fi may njëkkee mooy moom xale bu góor bi nga xam ni mm-hmm. xaritu jabaram jël na habillement wu jabaram sol ko. mais kooku yëgul de. yëgul de parce que moom falaa jëm falaa jëm. xamul affaire bi mu demee te trompé jabaram falaa jëm nag war na xam eh, ne jabar sa jabar nga yàgg ak lu mu la ma jigéen loolu xamoo ci lu bari. nga mën a xam ne kii la jabar jabar. noo koy xamee mën nga dafa changé fee. mën nga dafa changé fee. may mën naa jabar.

yow li xamoo ci daal déglu ma eh, kooku. man na ma may ma kooku ku góor ki moo trompé wu. waaw dañ ko pièce dafay yéeg. sa jabar xamut. sa jabar jamono jooju mais mooy ma jigéen a jooju xanaa amul dafa am loo xam ne yow tamit ma jigéen dafa am loo xam ne déglu ma eh ma jigéen dafa déglu ma sinaa am foo xam ni bu fa góor tollee oustaz yow góor nga am na foo xam ne góor la mais xam ne boo demee ba ci biir nga xam ne kii du moom déglu ma rek am na foo xam ne bu ma mm. góor tollee sa ay feemu ci sax feemu jabar ay yëg yoo xam ne mm. xel ma dem na wala déedéet mm. ah, xam nga lool moo tax ñu lay wax ne la sa aaya boobu nga naan boo tollee ci diggante sàngam ma ngi koy tari ñi ko mokkal bari wuñ dëgg la dëgg yaa ngi dégg kon fii nga xam ne mooy point bi kii wax waa ji mën naa nekk ci njuumte astafurlah tey ko waa ji dafa juum waa léegi ñaara am. waaw ci waa ji. tayu ko. su fekkee ne ne waa ji moo ko tey. non nu mu koy tayee ba ma ñëw ci ku tayee mm-hmm. parce que ñoom ne ki sukaa nee na ko sa xeetu jabar da koy xam. jigéen ñi moom su fekkee xam na ko. Mm. moom waa ji. charia mm. dal na ci kawam. waaw bu dee xamu ko bu dee xam na ko léegi ma ñëw ci xamu ko. waaw ñëwal ci xamu ko su dee xamu ko. waaw. su dee xamu ko. amu ci benn bàkkaar ñu déglu ma. su fekkee ni xamu ko laa wax. xamu ko jàpp na ni ki mu tëddal nii ba sëy ak moom. jabaram la jabaram la ko teg. kooku amul bàkkaar. waaye non de xam nga loolu après dañ ñëw man damay wax charia li mu ci wax ba pare. après ñu door a indi suñu xalaat. su fekkee xamu ko laa wax. charia du la topp ci loo xamul. nu mu koy toppee. lépp loo xam ne xamoo ko charia du la topp. mais su fekkente ne dem na ba ci biir mu yëg ni kii du jabar. ah man bu koy yëg am na fu mu ko oh. am na fu mu koy yëgee. attention déglu ma am ah. na fu mu koy yëgee mënu ci dara. déglu ma rek ah am na fu mu koy yëgee. waaw du ci man dara nga fa mu koy yëgee fu mu mën a ah, doon. sans dépense. dem na ba saa déglu ma rek saa ah, déglu ma saa. non non non non saa déglu ma parce que fii nga nekk. fii déglu am na fu mu koy yëgee. mënatul a téem mënatul boppam. même bu mënatul loolu ngay dugal. même bu mënatul loolu boppam saa. même bu mënul loolu boppam. lu muy def am na ba toll ci dimension boobu. waaw mu yëg ni kii du jabaram. waaw lu mu ca dolli waat. déedéet waaw kan mu koy. yaa ngi may dégg bu baax ba ci. sens tey caaxaan. lu mu ca dolli baam bi. mu dem ba yëg ni kii nag du jabaram. Hmm. lu mu ca dolli waat rek charia rey na. déedéet loolu jógee foofu. ak lu mu sori sori non non fii yëgul oustaz déglu ma amul bàkkaar oustaz déglu ma nag oustaz déglu ma non déglu ma oustaz li ma wax dafa lay non mais am na fu muy toll waaw même bu retrouver ne kii la jabaram waaw bu boobaa mënatu la contrôler boppam. parce que les émotions yeeg kii. xam nga lan moo tax nga bànn yow affaire bànn lu tax mu loolu moo ma neex ci saa loolu moo doy waar saa yow lu tax mu neex la lan sax rek kuutoo kuut nga bëgg waa ji foofu bu fa eggee moom. normalement daal moom amul lu tulatee boppam. day àgg koo lu tax saar boobu ñu bari mokkaluñ ko. saar la mooy bi ñu war a tali xaw ma si diggante xaw ma. loolu dafa leer saar. Ah. wax naa ko waxate ko fi. Ah. dee leen jàng allahuma jannib nii mina seytaan. yow ñaar kañ nga ko gën a jàng allahuma jannib nii. na ko ñëpp jàng. léegi ma ne ndax yaa koy jàng sa loxo. saa wax naa la ko ni la. Ah. sa loxo ngay yëkkati. jàng ko ci teg ko ci sa bopp soxna. Mm. moom it mu yëkkati ko teg ko ci sa bopp. ngeen mm. ànd dem seen kaw la. ah, ah? mu wax ko nga topp nga répété ko. Ah, wax ko baat ak baat. am na foo xam ne boo ko tolloo doo paree nga jàng ko. ah ñu jóge foofu. ndax question bi dafa xaw a xóot. Mm-hmm. bi mooy. xale bu jigéen bi nga xam ne. sa temps la parole jeex na nag. waaw xale bu jigéen bi nga xam ne. jóge na fa. daal di fay jaare moom uti beneen far. dem sëy ak moom am na jëkkër njaaloo jëkkër am njaaloo woon na ba tax na nee na day fayu moom dafay am ñoom ñaar ñëpp sariya rey na leen mhm. dañ leen di ñoom ñaar ñëpp léegi mu des xale bu jigéen bii xaritam mhm. bu fekkee amul jëkkër mhm. ndax Sénégal moom toj na loo ci mën a dégg moom jamono juñ tool ku am sa jabar moom bee ba nga xool bu baax ku am sa jëkkër it bee ba nga xool bu baax toj na xale bu jigéen bu fekkeen teni laa ne amul jëkkër jeex na oustaz bu boobaa yar yoon lañ koy dóor. ñu ko fi bàyyi téeméer yar lañ koy ah? dóor ndax dafa njaaloo. bu lañ koy rey beneen aljuma beneen aljuma incha dinañ ci ñëw euh, di wax ne nag gars yi képp koo xam ne rek euh, am nga question ci masala yi euh, boo ñu contacter rek vidéo ngay def ne ñu ko via whatsapp ci 77 272 55 59 vendredi prochain moom incha allah dinañ ci ñëw parce que oustaz li saa jógu wax nii jabar ak jëkkër miinante nañ miinante boo xamante ne nii jàpp naa ni lu mu lëndëm lëndëm lëndëm ah. nit yi mën nañu mën nañu xamante parce que Euh, ki ngay nekkal bu yàggee dangay ngay xam ay senteur am ak yu demee noonu. en tout cas c'est compliqué. mais vendredi prochain incha allah ci ñëw. du tee itam yéen téléspectateurs yi ngeen bàyyi ñu seen vidéo yi mm. nga xamante ne masala la su ko defee ñu jox leen dig daje beneen jeudi. incha allah euh, ma waxaatal numéro bi dafa gàtt sànq. ay ca 77 le 272 55 59 77 272 55 59. vidéo nga envoyé ko macha allah sama rakk ji rafetati na ah li ngeen indi nice na trop donc bu vendredi ngeen indi bi nga xam ne rek moom la mam bam bi indi muy loo xam ne lu am solo la parce que ñetti question la loo xam ne ci biir laaj bi la ma ci ñetti question voilà ci biir laaj bi macha allah rafet na donc dañu dem régie daal di jël ànd déw ñëw ànd ak ki nga xam ne rek moom moo di madame Kébé Ndiouga Ali Ndiakhate ak Saak Mbaye ci li nga xam ne rek moom ma di kujje bu amati solo Euh, jërëjëf Modou Diouf jëf Abdou Top ak Laye maam ma madame Kébé Ndiouga Ali naam man maay boo ne ma Kébé Ndiouga Ali ñaxaraas ak mbay rek sama xol bi day daal di sedd ne wanagu mboot nee naa du ma taay di ko wax ndax moo tax deew ma male di jaay kew tubaarkàlla fii laa ko def fe waaw macha allah donc amaan mbégte gu rëy rëy ci émission bu mag bi lee di jommet ah ñëw ñu ñeen a waaye muy kujje gi nga xamante ni nee naa leen man damaa bëgg kujje defante dafa baax ci benn côté. Mhm. ndax bu wujje amutoon dina am ñu gedd seen i cër ndax ñenn ñi wujje da leen yokk jom. Mhm. Euh, tey ñëwati nañ ci lu amati solo kujje politique yi tàmbali na léegi nag kilifa diine yi ñu ma ko sañee wax laxasu nañ ci. Mhm. ah balaa ñu koy farafànce rek dañuy daal dem régie nànk ndax ku ne gis na appel line bi président Macky Sall demoon na fa Sonko itam demoon na fa am na ñaari wax yi jug.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 lépp lu ko bëgg a yàqati ñun ñëpp war nañ cee suñu bakkan te xam ne Sëriñ Tuubaa ñaan ñaan la jàmm ci àdduna te waxoon ne Tuubaa xarasahu Allahu taala kon nañ xam ne dara mënu koo yàq. nun mag ñi njiitu réew mi rek la ñu àndal njiitu réew rek la ñu àndal waaye yéen gone yi ku leen neex mën ngeen ànd ak moom waaye loolu moo nekk nun fii mu ne mag rek la ñu mën a àndal makki rek la ñu mën a àndal makki dong la ñu àndal. war nañu sàmm suñu diine ak nii ñu ko que lii lii la ñu xam ñun si lislaam parce que xam ne loo topp junni nag waratu ñëw naan dañ lay jàngal noo koy noo koy toppee. ñun de ku am leneen na jël waaye li ñu am Sénégal doy nañu. ku doon wërsëg wi nekk ci àdduna yépp tuuru na fii ci suñu réew te xol yi baaxuñu jikko yu baaxuñu du am njariñ moo tax damay rafetlu tem bi nga xamante ni tànn ngeen ko. muy paix et développement selon les enseignements de Seydina Limamou. nit ki nag balaa balaa jàmmal nit ñi na jàmmal boppam waaye ka toog di woo nit ñi si jàmm jàmmalul boppam ñàkk jàmmal sa bopp mooy cër yi yàlla tàggatal la nga war katee sant nga kay say mooy waaye jàmmaloo sa bopp waaye bay jàmmal keneen ndax mooy googu fa mu la jëmee fitna la. sang bi ne lii ku ci ne dañ la digal muy farata ci yow nga jàmmal leen jàmmal leen mooy nga ñongal leen doo leen bàyyi a leen ñu topp seytaane topp bakken bu boobaa jàmmaloo sa bopp yow bay wax keneen nanu dem si jàmm ñu dalal seen xarit euh, ci message bi di ni dégg nañ ko bu baax a baax mm. waaye liñ ci bëgg yokk ci lu gàtt rek mm-hmm. li ngeen wax dafa am solo mm-hmm. mooy ñun dañoo jëkk ni projet politique mm-hmm. ñëw teg ko ci li charte kuréel bi li mu wax mooy démocratie conquête pouvoir ci jàmm ak dal ak li constitution permettre wax ak Sénégalais yi jaay leen projet buñ ko gëmee ñu demee fa ñuy tànnee su dee doy nañ leen ñu tànn jaaruñu ko ci voie militaire wala beneen voie. sëriñ bi li xaw a ñuul ci mbir mi rek mooy bu dee ay nit dañoo jóg taxaw ne nag diw du egg fa ñuy tànnee foofu la problème bi nekk. bu ay nit jógee jàpp nañ ni ànd doole te askan wi ànd moom ba dinañu dinañ ko euh, faqatal ba du egg fa ñuy tànnee foofu la problème bi bu ñu bàyyee ñëpp ci seen teef. ñu egg fa ñu war a yegg Sénégalais seet ki leen doy ñu tànn ko coow du am waaye ne yor naa sama justice te dinaa faqatal kii ba du egg fa ñuy tànni waaye yooyu ma yóbbante la ko incha allah nga di ko ko mm-hmm. te xam ne bu yàlla ne di nga egg di ne nga a mais boo nee di nga egg di ne incha allah bu itam ubbil naa nit mm-hmm. xéewal jëm ci moom mm-hmm. amul kenn ku ko mën a tey bàyyi xel loola bàyyi xel yàllaa ko gën moo tax ma dolli la loolu nga daarloo ko te xam ne nit bu ne woon tey dinga nga dee te sa bakkan waru faayam mm-hmm. ala kulli xaal kenn mënu ci dara moom balaa egsi sax fekk na ji dootu allah ñoo ko déggandoo euh, daw na yaram mais ñu ngi nuyu sëriñ bi di ko ñaanal lay maxtaar yàlla na fi yàgg te wér te mu yeggali euh, mbébétu maamam ci keppaar gi waaye di rafetlu tam Ousmane Sonko xam nga wax euh, neex na mais déggin moo daax ndax dañ ne wax bu dafee sax nopp yoo koy dégg war a wér tey man dama rafetlu réponse am parce que tey bu sëñ bi waxoon rek moom mu génn dem dinañ mono dinañ monopoliser parole sëñ bi wax autrement wala ñu wax sonk autrement fekk moom la mu wax war na ko wax xalifa la kilifa la parce que kenn ku ci dañu toll moment bi nga xamante ne nii boo toogee yow en tant que kilifa di seetaan bu mbir ne ne kër dañu naan ah, anam mag ñi kenn du wax te mbir mii xew ci Sénégal dafa bëri te benn mag du wax ndax boo waxee ñu ne lu tax nga wax wala waroo wax mais tamit li ngay wax na nga ci dëgg ak diine ak te yàlla tax mais Ousmane Sonko rafetlu naa li mu wax que ni euh, nga nekk ci yoon tamit ñu ne la doo bokk ci mbir pour lan donc sëñ bi indi na apaisement di ñaan jàmm ci camp yëpp man jàpp ma ne Sonko kese la wax. parce que man bi mu toogee Macky Sall man dégg naa ko moom mu ne nit ki munoo koo xañ jàmm ba pare bëgg am jàmm. ba pare nit ki munoo koo wax ne ko munoo koo xañ jàmm ba pare bu dee nga ne ko repose en paix te bi muy dund mayoo ko paix mais loolu tam ku mu neex nga ne sëñ bi dafa wax ak Macky Sall moom moom wax ji. parce que moo xam ne ñu jàmm wala moo xam ne ñu nangam kenn ku ci nekk ak sa dégg kenn ku ci nekk libre nga pour déggee nu la neex wala nga waxee nu la neex mais lii wax ji daal na ñu bàyyi euh, jaay doole bi ñu bàyyi wax ju ñaaw ji kenn ku ci nekk muy sëriñ bi muy taale bi muy bëkk néeg bi xel puso la xale da koy for mag da koy for kenn ku ci nekk libre nga pour wax sa xalaat mais man li may ñaaw la ak li ma mënta concevoir ci suñu kilifa yi ak ñi ma ko sañ a wax am na yenn jotaay yu nga xamante ne man d'accord ma ci ñu ciy dugal tamit ci politique man je man sama xalaat bu gàtt donc yow boo indee ay nit wala nga teg ay nit dundal ci ñoom ci charia ñëwal ci fiqh ñëwal ci siira ñëwal ci tawxit ñëwal ci yàlla nee na ci ba nee na loolu kenn mënu ko bañ jàngale say mbiru maam jàngale say cosaana démb et tout mais tam ñu bañ a jël benn politicien bëgg lu ko neex wala lañ lay jox ba tax ya tamit nga lor ay nit ci ay kàddu man sama xalaat bu gàtt rafet ma ko mbaay réew mi yëngu na ak ñi ma ko sañ a wax sëriñ saa ngi wax ñii ñu ngi wax jaar nii ñee ñu ngi wax jaar nee kenn ku ci nekk nag yaa moom sa dégg ak sa ngëm ak sa topp lan nga ciy wax ci loolu ak lan nga ci xalaat ndax ku jë politique gi tàmbale na euh, macha allah te du euh, kenn ku dul pouvoir ak opposition opposition voilà muy loo xam ne euh, Bambi lu nu fatt la muy loo xam ne ku ne da ngay bëj ci sa waar kii day dem ne langue ne dem ne kii dem na lay dem ne ku ne nag yaay xool ni nga ko waxee léegi ni ci sa biir wax nga ni ku ne rek am nga foofu am am nga sañ-sañu. Mhm. am foo xam ne fa nga fa fa nga far. Mhm. mais nan def lu ne ci jàmm. Euh, dama naw euh, ki nga xam ne rek moom moo di porte parole laaye ni mhm. te dama ko déglu dama ko déglu tey avant maa ñëw di def ci émission. Euh, muy koo xam dama dégg ay waxam wax bi na mu saf ma torop ndax nit ki loolu lu dul jàmm jàmm ko gën. te li mu wax dëgg la ki njëkk a wax. président yi dani ko. koo xañu koo bëgg a xañ jàmmam rek fekk ma nga tey jàmm tey baam bi. su ma di la wutal jàmm chaque jour ma di la def di la nax di la wutal di la di la tukk di la boo génnee ma am na ma def ak yow mm. chaque jour ma di la ko def mm. bu yàggee yàlla day ñëw ci man mu ni bambi mii nga bëgg a sonal yow laay sonal ba dootoo fa da ngay fàtte bambi mm-hmm. bu ko defee mu sonal la mm-hmm. mais li mu wax tamit Ousmane Sonko ñëw ci tontu boo xam ne tontu bu ma neex la mm-hmm. dañu wax neex na mais dégg-dégg rek moo am solo ba mu ko waxee ci mbirum jaam dañu ko moom rek loolu lu ma ñor la te moom it ko waxee loolu mu ni lii laay wut président Macky bu waxee tamit moom jàmm lay wut ñoom ñaar bu ñu dajee muy ñoom ñaar ñu bëgg ku xam ne di nga bëgg ñoom ñaar bu ñu bëggee jàmm ci réew mii wax dëgg yàlla kon jàmm dina mën a am man de wax dëgg yàlla rafetlu naa li mu wax moom te maa ngi dina sama coloré ak moom moom ki nga xam ne moom moo di porte parole laa yéen laay maxtaar laay Seydina parce que dafa wax wax boo xam ne dafa am solo te nit ñi bi ñu ko déggee tey wax dëgg yàlla kontaan naa ci te wa ndaam naam Ousmane Sonko dañuy wax ni xam man kii ko mais tey ni ma ko déggee tey wax dëgg yàlla kontaan dëgg yàlla lu neex na def tey am na man li mu wax ci lu ma neex nee na bu yàlla bindee ci sa jëbi ne da ngay doon président ala kulli aali da day nekk buñ la bëggee rey tamit te sa dee warta jot doo dee ndax ku ne xam ne ne Ousmane mm, Sonko am na fi deegu foomu bari ki dem booy jaay image yaa ngi ci réseaux sociaux yi waaye wujj gu jeexul jugu fa mm. nañ yàlla musal rek may ñu xewal ak sutura te sàmmal ñu boppam ndax ku yàlla sàng ku ne doo liw maaj réew mi yëngu na mm. tubaarkàlla waaw sa bambi loolu mooy euh, li ñuy wax naan yàlla buy rëdd. Mm-hmm. yow ngay effacé mu rëddaat nga effacé bu yàggee yow mi rëdd sax yow lay effacé mm-hmm. daal di daal di tegaat rëddam mm-hmm. ma ma ma ma ma rafetlu nag kàddu yi nga xamante ne ni porte parole bi wax na ko mm-hmm. mooy maam Libaas Laay ak Ibou Seyni dañu wax ay kàddu yoo xamante ne vraiment lu kàddu Ousmane Sonko neex neex neex neex keroog ba ma leen dégloo ci seen wax rawatina bay Antoine Félix Diome mi nga xamante ne ni moom mooy suñu ministre de l'intérieur yëkkatee ay kàddu di woote jàmm mu ni ko jàmm de wax dëgg yàlla yow mii ñëw di wax nit ñi dañu bëgg réew mi am stabilité dañu bëgg jàmm mm. alors que yow woote wuloo ko. Mhm. day day nduru leneen mhm. loolu daf daf daf ma xalaat loo rek mooy que ni yow mi nekk ministre bu bu yore wàllum intérieur ci biiru Sénégal. Mhm. Euh, nga taxaw fii dara ay événement am fii muy mars ñëpp ñëpp ñëpp teewe woon nañ li fi jotoon am ah nga ñu ñu ñu nit ñi génn. mobilisation bi xeex bi taroon lool nga génn ne Sénégalais yi. ak ki nga xamante ne ni moom moo tax peut-être ñuy génn ñuy xeex muy euh, Ousmane Sonko. ay terroriste lañ. Mm-hmm. xam nga kooku baat boobu ku ko yëkkati rek mm-hmm. mooy que ni yow bëggoo jàmm parce que voilà mu ngi noonu ñun Sénégal xamuñu loolu. Mm-hmm. dunduñu loolu. bokkul ci suñuy habitude. nga topp benn nit rek singali ko chaque jour yaa ngi yëkkati ay kàddu yoo xamante ni ñaaw la jëmale ko ci ci moom. à chaque fois saa suy génn yaa ngi gis ah, mesure ak dispositif bi ñuy teg diggante te kër gi ba tribunal ah, xale bu génn nara gunge sa sa sa leader nga ne ko yow doo ko fi defee. ay lacrymogènes yoo xamante ni nii yàgg nañu sentir xetu lak lacrymogène mhm. mais yii ñu gis nii cette fois si mhm. dafa dafa dafa dafa dafa doy waar ak mhm. yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii yaa ngi koy tegal nit ki nga ñëw tax a yoone da ngay da ngay da ngay woote jàmm est-ce que yow moo mënoon di woote jàmm yow bëgg nga bëgg bëgg nga jàng jàmm mu tax parfois Guy Marius Sagna dafay wax ay kàddu yu am solo dañu nekk si réew moo xamante ni nii léegi kenn xamatul kenn nga ne yow da ngaa bëgg jàmm ay élection la ñu jëm mhm. yow ñëpp xam nañ ni yow waroo bokkaat mhm. parce que ñaari mandat la ñu wax ne mhm. voté nañu ko ne kenn amatul du sañ-sañu def plus de deux mandats consécutifs ñenn ñi ci sëy ñi nga xam ne dañu nekk si say gouvernement parfois bu ñuy waxtaan sax dañuy cofaale ne pare nañ à ce que gunge ko mu dem troisième mandat naruloo bokk ci ay élection nga ni diw mi kat bu fi bokkee léegi yow lan nga bëgg finalement moo tax seen i kàddu parfois dafay am solo taalibe yi aussi ñu ko siy topp Ousmane Sonko tontu ko lu am solo mooy que ni nit ki ngay ngay wax ne da nga bëgg jàmm tamit bu ko xañ moom li mu bëgg mhm. parce que moom dafa pare pour jiite réew mi pour defar ko mhm. su fekkee ne yow mii ni jàmm nga bëgg mhm. nañu bàyyi ouverture bu bu bu élection jotee nit ñi seen i carte d'identité la ñu yor te même koo si neexal ne ko voteel ma sax su demee si biir euh, urne ba mën na def li ko neex kon donc nañu xoolaat bu baax a baax kàddu yi kilifa yi aussi. Mhm. bu ñuy wax bu ñu bu ñu yem. kase si ñi nga xamante ni nii ñoo di opposition bi état certes ñoom ñoo yore doole ji mais aussi parfois dafay baax ngay jàkkaarloog ñoom di leen wax li nga xamante ne nii moom mooy dëgg loolu moo fi réalité mhm. am na yoon yoo xamante ni jekkul ci ci ci dëkk Sénégal te boo moytuwul nag mhm. lii ñu gis nii muy xeeñ nii dëgg yàlla personne ne le souhaite kenn ñaanu ko mais am na nu muy demee tuuti rek ñoom ñooñu ñoom ñooy créer dégâts yi fi nar a am ëllëg. yal nañ ci yàlla musal parce que sëñ Bass Abdou mu ngi koy wax nee na Touba seen bakkan lañ ci gar. Euh, am na ay ñoñ nit tamit ñoo xamante ni nee nañ Sonko lim leen jaral seen bakkan lañ ci gar kenn ku ci nekk libre nga ci la nga nekk nga dogu ci xaatim ci ñaan ci yàlla. donc parce que li xew Touba musul am wala li xew Mbacke muy lacrymogène man de ma barkaati démb euh, tey laa am na loo xam ne lu ci bëri raw na ma jamonoy Ablaye waat laa mën a toog nettali moom laa fekkee. ndax Sénégal tam politique jur na lu nekk lu nekk war na fee mën a am mais liy sumb loolu tamit ak liy wax loolu tamit nañu laal fi góom bi nekk tamit surtout mën man ma koy bëgg daal tamit waa jàmm moom la ñëpp soxla parce que ñun ñii ñëpp ku ci ñàkk jàmm duñ toog fi naan ñu ngi toog di liggéey wala suñu yaay wala suñu papa yi duñ mën a nekk ci jàmm donc ñoom aussi tamit man je ma suis dit que ne Macky Sall lii may wax yaa ko moom son excellence yow nga waxoon ne dafa am ay dossiers yi nga xamante ne da yaa teg sa lii sa conc c'est ça non donc yow boo bëggoon Sénégal stable jàmm am fi léegi billaahi wallaahi tallaay coow li jeex na Antoine li mu wax ni bu ko gëmoon au fond Sénégal du tàkk xale yi du ñu taal Auchan du ñu xeex du ñu rayante du ñu jamante avant sëriñ bi di leen oo ci kaa ñu jàmm wala kaa leen jël sujet bu am solo muy jàmm ngeen ñëw jël jàmm jooju di ko wax ci kilifa diine ak kilifa aada yi na ngeen ko gëm personne d'abord taxaw loolu def seen point de presse wax ne da ngeen bëgg jàmm mais bu ngeen point de presse da ngeen di nekk di wax autre chose bu sëriñ si waxee ngeen bëgg a di wax ci loolu tamit fii kenn mënatul ndax kenn tamit que ça soit clair oustaz réew mi yëngu na ku jegi doy na waar ci pouvoir ak i opposition léegi tey suñu kilifa diine yi tamit ñu ngi ci biir dañu koy wax ñii jaar nañ nii kenn ku ci nekk libre na ñii tamit jaar nañ te du ma juumul sama déggin bu gàtt jamonoy Senghor ba tey politique moom ak diine ñoo ànd ndax dégg naa ne araamul xëy na jëf ji moo salte lañ la charia rafetlu wut mooy wëccu lekkaat ak ñàkk jom gi ci biir rek yàlla na ma ko yàlla jéggal ak ñi ma ko sañ a wax nu leen nu leen neex mel di cuubu comme c'est pas possible ñu leen di vaar donc loolu aussi yow di nga ci ñëw ndax am na lu ci chariatul islam yi wax ci loolu tamit ndax sëñ Abdoulaye daan na wax nit waxu daawam ak waxu renam bu ñu ko méngalee mu bokk ñu ne ndax góor la dafa changé ne ndax musoon naa gore kon tiit naa réew mi yëngu na oustaz. Bambi jërëjëf ci ku jéggu am solo gi nga indi tey. dégg naa la nga wax loo am solo léegi te loo xam ne def nañ ko làmmiñ ñun ñëpp mooy politique ak diine ñoo ànd mais politique gu Sénégal moom àndut ak diine loolu moom na leer bi man politique bi ma gis Sénégal l'islam waxu ko l'islam waxul ni nii politiciens sénégalais yi mel na waa diine dam fekki leen ànd ceeg ñoom loolu moom doxu yàlla du waxu yonent bi loolu moom nañ ko d'accord xam ko bu doon loolu la El Hadj Abdoul Aziz Dabakh ku ne xam na ni président yëkkati na ay millions jox ko mu delloo ko ko xam nga lu mu doon bañ lekk alalu réew mi te ku ëmb sa sànqal sukaa ëmb sa ker sax ñaar ñooy yàq réew ñaar ñooy defar réew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag waxam laay wax dafa ne sinfaani min ummati isa fasadu fasadal kull wa isa salahu salahal kull ñu ni ko ban ak ban la mu ni al umara wal fuqaa nee na ñaar ñooy yàq réew ñaar ñooy defar réew yonent bi kan ak kan la mu ni chef religieux ak politicien nee na su réew defaroo ñoom ñaar ñoo ko defar su réew yàqoo ñoom ñaar ñoo ko yàq bam bi dafa am fu ñu toll gis nga euh, euh, euh, thème bi Seydina Issa Laay doomu góor gi Baye Abdoulaye Thiaw Laay yàlla na yàlla kawel aljanaam dama bëgg ñu koy déglu saa ku mën discours la at bu jot kenn du ko dàqale discours Seydina Issa ku mën discours la te li muy wax lépp day laal góomu Sénégal mais ñun dañuy bàyyi rek mu dem daaw def na ko mu neex bàyyiwuñ ci xel ren it kazalika bi nañu bàyyi jayante bi jayante bi rek moo ñu sonnal bu ñu bàyyi jayante bi jàmm dafa am loo xam ne il faut ñu comprendre ko li ñu war a comprendre mooy dëgg yàllaa ko moom dëgg Macky Sall moomu ko dëgg Sonko moomu ko li leer ba leer. mooy Macky Sall ak Sonko war nañoo xam staff boo xam ni dina leen firil fi yàllay waxee nguur ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk doole dalaa topp ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk doole dalaa topp te yàlla mooy joxe nguur yàlla dafa wax ni qulillahumma malikal mulk tuuti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadir yàlla nee na Macky Sall nguur gi nga am ba jële fi Abdoulaye Wade bëccëg ndar kàmb laa la ko jox bi ma la koy jox adduna yëpp a ngi daje la pexe moo xalaat Abdoulaye Wade amoon na ko waaye yàlla nee na boobu yow laa jël décision ne yow yi yaay falu kenn mënta fexe ba doo falu gis nga nag fal googu ma la fal yow yi bis boo demee ba jàpp ni war ngaa pare ci Sénégal nga lànk ni doo pare fi ngay toog indil waa Sénégal problème yàlla ni wa tusil lu nag da ngay jël bële denn ko ci troisième bi yàlla ne na wa tusil lu mën naa laa sànq dama dem ba sénégalais yi dootuñu respecté dema dem ba loo wax dootuñu ko gëm su boobaa nag ma seetaat kama neex ma jox ko Sénégal loolu pouvoiru yàlla la nekkul ci benn loxo sëriñ nag attention nekkul ci benn loxo sëriñ li xew suba yàlla rek ko xam waaye beneen bi Sonko ko moom na ko waa estafam jàngal xam nga mooy lan yàlla nee na ku ma jëlul décision ne da ngay doon da ngay falu doo ma sa falu nag il faut ñu comprendre li yàlla moom su kaa suñu bëggee noppalu Macky Sall nañ ko xamal li yàlla moom Sonko ñu xamal ko li yàlla moom li yàlla moom na ko Sonko xam li Macky Sall moom na ko Sonko xam ñun askan wi maa ngi ñëw maa ngi ñëw nee naa la man samay kàddu nga fi may gis nii fi ma toog Seydina Mouhamed laa lay seede loo maa ngi déglu programme Macky Sall di déglu programme Sonko ku ma ci ku ma ci convaincre ku ma ci convaincre kooku laa jox sama carte la loolu nag ñëwagul excès guñ ca mais dama lay wax li yàllay wax xooluma Macky Sall xooluma sonk faralu ma ci kenn ñoom ñaar. damay wax dëgg yi mooy. Sonko tam na xam loolu. gis nga bis bu ko yàlla ne da war a toog. bu àdduna Sénégal gépp dajaloo woon ni Sonko du falu. neex naqari dafay falu. ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw su yàlla dogalee nii. dinañu coow ay nit dinañu dee waaye du falu de. neex naqari kenn mënu ci dara. léegi nag li tax nag te mu waa kër maam Seydina limon bi am solo. dafa am fu ñu leen woo moom Macky Sall nañu daw wuyu ji. dafa am fu ñu leen woo Soka fi ñu leen woo foofu la ñu dem wuy ji moo tax sa thème bi am sens nañu dem wuyu ji fi ñu leen woo déggoo la paix et le développement à la lumière de l'enseignement de Seydina Limamou bu ñu nee la paix mooy mooy islam mooy jàmm le développement mooy tanmiya bi lu ko laaraab bi maanaam yokkute boo xamante ni. ñu ngi koy jaarale ci enseignement wu ak njàngale Seydina Limaamu kon li am ba am li am ba am mooy bu ñu bëggee jàmm laa wax nañu bàyyi opposition bi bu ñu bëggee mars ñu bàyyi leen nañ mars bu ñu bëggee sitting nañ leen bàyyi ñu sitting loolu état bi laa waxal de état bi laa wax ni bu fekk parce que mënu ma comprendre ñoom suñu bëggee sitting wala ñu bëgg a def seen yëf bopp ñu def ko problème doo am ñëwee suñ ko bëggee ñu tere leen ko loolu moom ànduma ci loolu moom ànduma ci ñoom de àjjuma bi di dëbb euh, mbàkkeem gée ci lañ dagg suñu signal te sans raison teguñ ko fenn waaw mu ngoog mu ngoog dok waa Macky Sall wal fajiri gii moo ko may visibilité may ko promotion tele laa toog di wax jëppee yemee loolu nag ak Pape Alé Niang nga xam ne le 31 décembre ko fàtte mu ci histoire politique ca 2S moo toog invité la defal la promotion te ñun ñoo la wane woon wane la visibilité gis nga nag ku dul fàttali ku dul fàtte fàttali ko démb ah ëllëg dina dina doy waar daal donc nag kilifa nga rien n'est trop tard pour muy set tamit yàqu dara yemale ñëpp ñëpp sa njaboot yaay per de la nation réew mi boo bëggee mu am jàmm waxuma la kilifa diine wala kilifa aada ñoom buñ ko xaatimee te buggoo ko sax du am mais yow boo ne tey jàmm am jàmm am waa kañ mais nga mboor réew mi yëngu na damaa waaru damaa jommi. waaw macha allah euh, waxtaan wi am na solo. Euh, parce que euh, dañu dem ci li nga xamante ni mooy wàllu kujje. goo xamante ni gii laal na euh, ay point yoo xamante ni point yu am solo xam nga sànq yaa ngi koy fàttali rek mhm. que ni diine ji ak li nga xamante ni moom la ñuy wax politique mhm. ci réew mi yàgg gi nga xam ni yàgg dañ ko mhm, parce que euh, depuis jamonoy Senghor ba nëga ni nañ fi sëñ Fallou ak sëñ Babacar Sy mm-hmm. daal di jàppale woon ki nga xam ne mooy Senghor mm-hmm. euh, gis nañ fi tamit sëñ Cheikh mm-hmm. demoon na ba taxawal parti politique ak yu bari bari yoo xamante ni bi euh, jaar na fi waaw mais man damay jàpp ni euh, politique bi jamono yi nga xam ne fa la nekkoon démb donte Ablaye Wade nekk na opposition pendant vingt six ans yoo xamante ne bi mu ngi nekk ci opposition bi mais opposition la moom boo xamante ne bi euh, boo seetee dugg na ci nguur gi ay mm-hmm. yoon mm-hmm. nommé nañ ko fi ministre def ko fi ay kii mm-hmm. yoo xamante ni bi nekkoon nag nga gis ni moom ak Abdou Diouf donte daan nañ tëj kaso mais daan nga gis ni léeg-léeg Abdou Diouf xam ni Ablaye Wade am na lu muy posé parce que Abdou Diouf aussi tamit dama koy saluer parce que dama naa xamee respecté woon na mbooloo mi nekk ci ginnaaw Ablaye Wade parce que loolu c'est très important parce que boo gisee tension bi nekk nii yëpp rek mooy eh, dañu bëgg a ignorer masse bi nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko te loolu buñ ko ignorer rek daf ñuy yóbbu ci musiba la ñuy yóbbu parce que loolu du loo xam ni ay lu ñuy kii la mais lu am la réalité la boo xamante ni daf fee tey jii ñoom ci seen jëmi bopp xam nañ ñoo la gën a xam ni Ousmane ko moo leen gën a taxaw ci mim réew. parce que def nañ ay sondage defati ko. yoo xamante ni bi wan na leen ni sénégalais yi moom lañ jox bopp lu mel noonu nag bu amee ci am réew nag euh, li njëkk mooy nga respecter euh, force boobu nga xamante ni bii force bu kii la boo xam ni yow xam nga ko parce que li tax ñu xam ko mooy essayer nga benn yoon pour ne dama koy tëj. Ah, parce que am na loo xamante ni bi essayé nañ ko mënta ne li tax mënta ne lan la askan wi la léegi nag ñu bari nag am na ñu ko interprété daal ne non non boobu dañoo xiifoon boobu jamonoy corona bi la boobu jafe-jafe yi nekkoon nit ñi dañoo meroon ñooñu ñoo lay defaral loo xam ne di la gëmloo waat ne la mhm. loolu lu mën a nekk la mais loolu mënul ne tout à fait loolu d'abord pour rek ñu bañ a dugg mhm. ci musiba nañ xam ni loolu mënul ne mhm. euh, nguur yàlla moo koy joxe mhm. waaye ku ne ak ni nga koy jotee mhm. parce que tey mhm. euh, bu fekkonte ne bi tey gis nga yàlla yàlla bay sa tool parce que yéen ñi oustaz léeg ngeen nettali ko am na benn waay joo xam ne ni bii dafa taxawoon di wax sunu boroom pour mu dimbali ko. bato ba ñëw di ko jàppale mu ne ko non yàlla lay xaar kii ba ñëw mu ne ko boo mu deewee yàlla na mu ne ko man ñaan ak li ma jaamu yëpp ñaan naa pour nga kii ma yàlla na ko indiwuma bato indiwuma lii. pour nga jàpp ci dem sa yoon. mais defu ko deful acte pour génn ci. léegi tey su fekkoon te ni tey jii son ko tey. mois de mars ba le eh, seetaan nañ ko mu ne bon gëm naa justice gëm naa lii gëm naa la wóor na yàlla jamono ji éliminé nañ ko ci histoire politique gu Sénégal dañ ñaan léeboon lu poon amoon na ko fi tudd Ousmane Sonko jiiñoon nañ ko fi léegi même sax bu audio yi demee ba génn dañ ñaan ndeysaan juum nañ ay waaye xoolal léegi li ko dal mooy li dal ay Mamadou Dia ay kii manipuler bi nga xamante ni bi defoon nañ ko euh, ba mu jàll léegi li tax loolu mënut a jàll parce que kenn yoratut monopole li nga xamante ni bi moom la ñuy wax communication parce que léegi nit ñi ñi ngi communiquer seeni portable technologie avancé bi mu avancer mhm. moom moo ko dimbali parce que tey bu du doon technologie tey sànk nañ ko bu yàgg parce que tey jii bu fekktoon ne technologie eh, yan télé fi ne Walfadjri bii la ñuy wax ne peut-être sax mën na génn ay kiom yooyu mais gis nga yeneen yeneen médias yi manipulation bi nga xamante ni bii moom lañ nekk mais lu ñu manipuler suba ba ngoon mm. boo yi génne ko teg ko ci internet bi léegi nag jàmm ji nga xamante ni moom la man jàmm ji mm. kilifa diine yëpp yi def discours ci jàmm mm. kenn rek lañ war a joxoñ mm-hmm. pour man Ousmane Sonko nekkul problème pour jàmm pour man bu ñuy wax ne réew mi jàmm mhm. ak di joxoñ nit naan ko jàmm mooy ki jeexal ba pare moom nga naan sëñ bi yow moom pare nga ci mbir mi jeexal nga parce que sax bokkaat day indi fitna ci réew dëgg la loolu mooy li nga xamante ni mooy lu ne mhm. foofu rek man foofu laay xaar kilifa diine yi ñu ñëw ci discours mhm. boobu daal dee wax présent Macky Sall ne ko mënatu la ne parce yow ci sa bopp def nga fi référendum boo xamante ni bii lan nga wax da nga wax ne Eh, kenn dootul mën a te romb lu am lu weesu ñaari mandat daal ne loolu moo tax nga def ko ba noppi ne mbir moom kenn duma ci seen say ministre ñëpp wax ko Ismaïla Madior Fall répété ñu ko ñetti yoon te nemetu koo wax benn yoon ah yaa ngi dégg eh, ñoom kii bun jonn wax ko bun Abdallah Mimi Touré Omar Youm Mimi Touré tout le monde ñëw wax ko daal ne léegi amatul may ma ñaari weer ma yeggale jàkka jeeg benn kii <laughs> yooyu yëpp ñoom ñoo ko wax c'est vrai waaw léegi nag ñu toll tey ñu naan noo jàmm-jàmm mel ni léegi benn waaye mooy yee fitna ñu ne kan mooy yee fitna ñu ne opposition maanaam daal opposition bi daal moom néew maanaam tey li ñuy wax noonu bi ñu waxee ne bukki euh, demal jëlali ma euh, ku bëgg góor euh, dafa dem indi jigéen ju wasin mu mi ngi nii kii moom ki moom kii moom ku bëgg góor a ngi xam nga c'est parce que am na doom ah jigéen bu toogu wasin mu indi ko daal ne mi ngi nii comprendre nga mm-hmm. c'est que loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li fi ne tey mm-hmm. tey ñëpp dañuy wax ne jàmm-jàmm mel ni dañuy xool ne nitu fitna kii la euh, mais beneen angle bi lañ war a xool man pour man wax dëgg fa yàlla jàmm daal tey mën na am ci réew mi mm-hmm. jàmm mën na am te ñun ñëpp dañoo bëgg réew mi ne ci jàmm parce que président Macky nit ñi dañ ko votel ci jàmm fal ko ab Ablaye Wade jóge fi joxe leen ngay ci jàmmak ak salaam du dëgg moom nag man damay wax ne moom mën na am plus que Abdoulaye Wade li nga xam ne moom la am yàlla dogal da fal nañ ko am na lu bari loo xamante ni bi def na ko ci biir réew mi lu dëgg mais nag leneen li nga xamante ni bi moom la defut am na yoo xamante ni bi tey gis nit ñi gis nañ ni même bu defee lii am na lu mu defut daanu état continuité la kenn mënul def li def na lenn loo xam ne bi tey buñ ko xaymaa moog Abdoulaye Wade mën nañ wax ne ah Abdoulaye Wade de peut-être moom li mu defoon Abdou Diouf defu ko waaye ñu ne ah Macky Sall de li mu defoon peut-être kat kii defu ko mm. bëgg nañ ëllëg ñu ne diwit li mu def wax dëgg fa yàlla président Macky Sall defu ko bu ko defee réew mi nekk ci benn lancé boo xamante ne bi kii mais eh, nga bëgg xëy xëy yow li nga doon kaas démb moom moo taxaw wax ni eh, julli gi juróom-ñaari kàbbar la ak juróomi kàbbar xaw ma julli na ñaari kii ba noppi war a sëlmal ñun moom moo ko wax. wallaay ah, ba noppi loolu lépp bu bëgg koo jël. ñu teg ko fële. léegi nag exercer plus de deux mandats consécutifs xam nga loolu suñ ko loolu tam saa. ñi ja ñoom ñu jàng. waaw non non bul wax ñoom ni jàng ah. gis nga ñoom yow. yow yooyu loolu leer na. Ah. leer na déglu ma Oustaz. gis nga yaa ngi leen di may port boo xam ne ci la ñuy jaar pour jéema a wëndeelaat bopp nit ñi. li ñu wax dafa leer nañ. waaw yaa ngi dégg li ñu wax leer na dugg na ci suñu bopp nit ñi dem nañ voté ko. daal di wax ne ànd nañ ci. donc li gën mooy ñu def li nga xam ne moom la wolof di wax. gor ca wax ñu def bi ñu ko war a defee mu daal di jeex. jàmm na ñooy ci mim réew. loolu rek mooy li nga xamante ne bii mooy gi mais fi mu doon yii ñuy topp di ko xëcc dañuy dugal réew mi ci fitna te fitna googu kenn bu maam Maodo moo ne nañ sabablu te bañ a sukkandikoo ca yëngu ya lu mu wax sabablu leen te bañ a sukkandikoo ca yëngu ya inna duha adafi donc kon Sonko mën na sabablu yëngu-yëngu mënul ñàkk ndax fii ku fi nekk ci pouvoir rek ñam nga mhm. ku fi opposé ñam nga mhm. Ablaye waa mi opposé vingt six ans vingt six voilà macha allah après ñu emprisonné ko def ko ay yëf def ko lu ne. Nelson Mandela noonu keneen noonu keneen Sénégal daal dëkk jaamale yeneen sous raison yi. pays Afrique la fa xew. yàlla nañ ci yàlla musal te ñoom ñoo ñu ci mun a musal état man yow laay waxal son excellence per de la nation mm-hmm. gis nga réew mii boo ko bëggee zirik ñëpp naan da nga koy zirik boo ci bëggee kaani nag wax dëgg fa yàlla am ah am na ñoo xam ne duñ yëkkaani de. macha allah dëgg neexul nañu defaraat toogaay pour recréer pour mieux. solution bi euh, lan lañ jàpp ne mooy solution bi. solution bi mooy man li ma jàpp. waaw solution mooy li ma jàpp tey son excellence. waaw oustaz bu ne na réew mi apaiser am jàmm léegi mu am ko. incha allah xam nga nit mënoo wujjee ba yegsi fi nga yegsi. Mm-hmm. nga am réew mi ñu fal la ci anam bu rafet. Mm-hmm. yow nga ne doo wujje au nom de quoi. Mm-hmm. la wujjee di tàndal ki nga xam ni moo leen di yoraat. waaw bu ma fi jógee. loolu mënul ne. bu ñu kenn jéem a tànnal. loolu c'est pas bien bàyyi sénégalais ñu tànnal seen bopp ki leen doy. Mm-hmm. point. waa Layeen bi wax na ko ñoo xam ne. yéen nga jël lépp emprisonné leen. Ah, mais c'est pas koy ñaaw ay élection yoo xamante ni bi kenn xamul ana kan kan moo war a nekk candidat ba pare bu ñu fi indiliwaatee euh, euh, parrainage dina am yeneen ñoo xam danañ leen éliminer te Khalifa Sall dafay li taxoon ñu tëj ko tëj bu yomb dafa ñëw def innocent ñu ñëw na ko burux yóbbu Sonko nag dafa def jardin <laughs> kaay du ñu benn tubaarkàlla <laughs> donc lii lañ leen indi doon te seen rubrique ku jógu amati solo gi amaan mbégte bu rëy rëy di toog di wax ak yéen euh, di ñaan rek yàlla nañu yàlla musal ci catu làmmiñ yàlla nañu yàlla téer suñu bopp ba kenn du gàgg ndax jàmm gën ay jàmm gën jamaa jàmm gën jamante itam kenn ku ci nekk rek boo xëyee da ngay ñaan yàlla ndax boo yeewoo boo wax alhamdulilahi rabil alamin teg sa ndeyjoor fekk sa càmmiñ da ngay ñaan yàlla am jàmm parce que jàmm ji bu ma la ko yéenee dalay lay ne balaa ma yegg si yow maa la ci ëppale safaani itam nazalika bu ma la yéenee lu bon lu bon li maa la ci jiitu mm. donc nañ defaraat toogaay recul pour mieux sauter te xam ne personne ne peut son destin mm. borom suna taalaa li mu bind lii mooy am lii mooy am lii mooy xew ci dara donc na rafet ñu kontaan bu baax a baax may nuyu suma yaa boutique sama sponsor bu mag bi ah, ah ci designer bu rafet bi ma ñëwal sama bopp di gërëm Bambi création ku ci bëgg rek comme dab sama numéro xam naa dina jaar ci barre d'écran papa top 77 363 7179 merci beaucoup je vous love maa ngi nuyu ñëpp di nuyu diaspora di nuyu sama sang bi di nuyu ñi ñi seetaan Touba 14 régions yëpp yéen ñi nga xamante ne da ngeen ñoo bëgg mm-hmm. di leen wax émission bi chaque vendredi la comme ni ngeen ko seetaanee tey ale jërëjëf euh, jërëjëf Mame Bambi euh, di ko di di sargal euh, ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi saxaw di stan télévision bu mag bi lee di leen ñaanal jàmm ñu nekk ñu nekkoon ci liggéey bi soobu ci ki nga xam ne rek àndoon nag suma rakk ji madame Dieng coro ma jigéen ci li nga xam ne rek moom moo di masala mu ànd ak Oustaz Souleymane Diaw Talla Suus ñëw ci kujje ji man bi Bambi ba jóge Ali Ndiax Rak Sak Mbay daal di ñëw ci kujje gu am solo donc di leen sargal di leen ñaanal jàmm di sargal sama rakk ji nga xam ne rek euh, moom moo di Adja Galerie nekk fële nga xam ne rek moo di ca rue de Thionk bu tonton Bass tonton Bass nag day soppee Ousmane Sonko. du ko bëgg loolu ci biir xolam tonton Bass bu Ousmane Sonko ñu ngi lay nuyu lu baree bari ñu nekk ci bi ñu waaw ñu ngi koy nuyu moom mi nga xam ne rek moom moo di tonton Bass ak Adja Galerie nga xam ne ñu nekk ci de Thionk ba euh, donc ki nga xam ne di nuyu nag ñu nekk ci bi ku ci mel ni ki nga xam ne rek moom moo di Abdou Top ak ki nga ne moo di Laye nga xam ne rek moom moo di El Hadji Mamadou Diouf lu ndax nit mat seen mbégte moo nekkoon li nga xam ne rek moo di suñu yitte di leen jox rendez-vous beneen vendredi incha allahu rabbi allez gros bisous à toute la population. Yeah. ma lay wax. juróom ñaari mbaam sëf la ren di ndax lan alali àdduna. dëgg la groupe la woon da doon agressé di sàcc di fàqat di def lu nekk. fóonante rek la yam amul leneen. mais fóonante dafa garaaw. bu garaawee nag ngir ñu ngi min dong la. bëgg siiw du dem bàmmeel. ku may digal lu baax ma def la sama noon weddi li ma doon fa ma jóge woon gas def ci kàmb la ma bàyyi be léegi maa ngi nii xaw ma fu ma nekk nii. fa mel ni dama reer xaw ma lii lan la nii fu may génn waat